envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. maintenant. ay ca jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 ñu ngi leen nuyu di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221. di leen nuyu di leen bu baax a baax à chaque fois comme ni ngeen ko waxee lépp loo xam ni actualité la people 221 da leen koy toppal waaye ku ne gis na euh, jamono ji li nga xamante mooy lëmbi réseaux sociaux yi muy ay mbiri Serigne Modou Lo Ngaabu di audio yi nga xamante ni dégg nañ ko ñii naan ndaw si da ko pesé ñii naan ndaw si pesé wu ko waaye li may wax people 221 du dégg ci ay réseaux sociaux rek di jël day déplacé wu ba fa mbir mi nekk dem seeti waa kër ga waxtaan ak ñoom ñu tuddee leen ay victimes tey nag ma déplacé wu ñëw seet si koo xamante ni mag la ci moom léppam la mu di sëriñ xaadim bambaloo fas yéene si moom waxtaan naka la jàngatee mbir mi sëriñ bi maa ngi lay nuyu di la dalal. waa kay euh, euh, ñi la fay bu baax a baax guy gi euh, tey ni nuyu ak mboolem ñi nga xamante ni ñooy seetaan maanaam seen seen bi. Euh, nuyoo bi ak ziar bi tam ñu ciy jiital nag euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér waaye di ziar tam suñu wasila suñu Baara Mbacke moom suñu Mbacke Mouhamed tam di ziar tam itam tam kilifaam muy suñu Moussa Mbacke Mouhamed di leen ñaanal suñu borom may leen gudd fan may leen wér euh, tëb leen kàttan tam ba liñ ba bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa ñu liggéey ko te ñu ànd ko ak ñoom ah. ci barkeb sëñ Tuubaa coowal Serigne Modou Lo Ngabou ñu xëy rek en grande surprise gis ko ci réseaux sociaux yi mm. bi nga jékki-jékki rek gis ko ci réseaux sociaux yi mm. automatiquement ndax gëm nga ko bala maa ñëw ci détails yi ci biir. waaw kay automatiquement man gëm ma woon ne maanaam lii nii maanaam lu am la lu bees la wax dëgg yàlla ndax it xam nga am na lu fi jaaroon loo xamante ni bii maanaam waxoon nañ ci ba jóge ba jóge ci kon gëm ma woon lii nii maanaam lu yees la loo xamante ni bii luy war a génnaat la ginnaaw bi ma demee gës bi ma demee samay gëstu nag euh, laa laa doog xam ne maanaam am na lu lu ci laale daal mhm. waaw. d'accord mhm. euh, ban relation nga am ak moom. waaw sëñ bi loolu sama mbokk la. maa ko mag maa ko féetee mag. waaye nag sama nijaay la waaye nag man su ma koy défendre défendre ko en tant que mbokk. waaw foofu laa a ñëw parce que mhm. moo tax ngay défendre sëñ Modou Lo. Euh, waaw sëñ Modou Lo gis nga 2021 sëñ bi bi ma fay dem. Mhm. boobu mosuma gisante ak sëñ Modou Lo. xam nga famille mbokk famille mën naa yaatu yaatu boo xamante ne bii di nga ne kii sa nangam la rek am benn benn relation bi. Mhm. sëñ Modou Lo man ma ko en tant que sëñ Modou Lo waaye dama koy defendre en tan que sama mbokk maam taalibe moo xamante ni bii xam naa ne am na liggéey bu muy liggéeyal lislaam waxuma yoonu murit de waaye am na liggéey bu muy liggéeyal sax lislaam ak yoonu murit maanaam ma koy défendre ngir loolu ndax sëñ Modou Lo gone la goo xamante ne bii maanaam def na fi loo xamante ni mag ñu bari ñu ko fi ndax taxawal na daara joo xamante ni ñett téeméer nit ña ngi koy jàng wala lu ko ëpp tabax na hôpital boo xamante ne bii ñu baree bari mën nañ cee faju taxawal na maanaam ay daayira yoo xamante ne bii defar na ci ay nit ñu baree baree bari ñoo xamante ne bii tey jii maanaam fañ nekk ay exemple lañ ca kon nag maanaam bu amee loo xamante ni problème la boo xam ne dal na ko maanaam nit ñi dañ cee war a da dawe xel rawatina nag mu doon loo xamante ne bii xañ na kam ko siqal muy soxla si nga ne moom la ko siqal ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ñoo génne audio yi amu ci kenn koo xamante ne bii joxe leçon de morale boo xam ne a dégg mhm. fii mhm. na ci taxaw na moom yor na ñaari soxna taxaw na jël na jigéen fay ko nangam tëdde ko ndax kooku moom mooy joxe moom mooy joxe leçon de morale mhm. keneen ki nga xam moom moo ci wax wax te nekk Amérique kooku noonu déggal déggal wax ci moom koo xamante ne bii daanaka yow fuñ toll ñi ngi ñi ngi lay joxañ yow yaa ngi yor xotteeku boo xamante ni moo ëpp maanaam maanaam maanaam caay yu toj nga yor maanaam di di di di di di di di di joxañ calation jàmbur loolu mën naa ñàkk mm-hmm. soxna si nga xamante ni moom moo génne audio yi tamit xañ na relation bi mu amoon ak sëñ bi maanaam ñoom ñaar la woon boo problème amut woon muy muy am lam bëgg ci sëñ bi muy maanaam di lekk xaalisam bi mu demee nag ba nga xamante ni bii maanaam am na ñum triande xaalis bu baree baree baree baree bëri bañ am ko problème mu daw génn réew mi bëgg sëñ bi di ko yónnee xaalis sëñ bi ne ko déedéet mu mu mu mu mu mu génne mu génne audio yi mais loolu relation la woon boo xam ne ñoom ñoo ko amoon seen biir normalement sax fi mu toll nii maanaam man li ma gis mooy ki mu ko joxoon sax ne ko génnee ko bu fekkoon ne nit ku baax la li mu koy wax mooy yow si lii seen relation yooyu a génn lii rek la Sénégal nag dama koy di wax sëñ Mbacke Soxna Lo day wax wax ne maanaam boo ànd ak ñi maanaam maanaam nit ñi boo ànd ñoom loo root la rek mën nañ mën nañ ko fot jox la ba mu des sa bopp bis boo rootee yow ci sa kaw la ñuy jaar Sénégal ñaata nit ñoo fi nekk jariñ réew mi jariñ diine ji jariñ société bi jekki jékki am benn tolof tolof bu ndaw nit ñi jaar ci seen kaw jàll yàqate leen carrément. loolu ki kenn xamul ñaata mais ndax jàppoon ni fii tamit moom daf ci xaw am part de responsabilité. parce que mhm. ak li fi xewoon. ak li mhm. xewaat nii ndax jàppoon ni loolu tamit du fëtam. waaw wala ñàkk ak waaw loolu fëtam la dafa yeewuwut maam li ñuy wax sëriñu naal li moom la xam nga ñun ñi nga xamante ni bii xaj na am na fuñ jaar daal xam xam xam nañ maam am nañ tuuti ouvert ouverture maam ci média yi xel yooyu noonu am na loo xamante ni ñun duñ duñ duñu daal moom nag dafa wut moom dafa yeewoo di ko maanaam benn xale la ñaar mooy ab doxam demut fenn koo xamante ni bi yow maanaam maanaam yi yii rek bi nga ko amee léegi maanaam matul ñeenti at téléphone yi nga xamante moom la ñu kii bi nga ko amee léegi matul quatre kooku moo moo waral muy muy wax ay ay jigéen ñu koy enregistré wala nangam ak nangam waaye waaye bu fekkonte ne yeewu na am na loo xamante ni du ko dal ñun nag nekkuñu sax di ko layal naan moo wax léegi waxul lii wala yu demee ndax vidéo yi moom dana euh, fàng mais liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey maanaam rikki waay nit ñi nañ ko bàyyi mu liggéey ab liggéeyam tañ xam ne nag am na ca coowam la lay weesu waxoon naa ko am na ku ma woowoon génn kilifa naan ma waaw moom kat fi mu toll nii warut a nangu ak nax ndax nangam ak nangam li mu def ma ne ko bu fekkonte ne bi ku def rek ñu saxal ay béjjén am na béjjén yoo xamante ne bii kenn du ko xool dañ koy kaalawaale waaw kon nag nañ xam ne maanaam maanaam yëf yi maanaam c'est pas la fin du daal nañ ko bàyyi mu liggéey. lan nga koy wax. waaw moom nag li koy wax mooy maanaam na na na na na na na na na moytandiku na moytandiku bu baax a baax tey jigéen ñi rawatina jigéen ñi jigéen ñooy xabaayilu saytaan maanaam fett la goo xam ne saytaane moom la yar te saa bu ko diiree day jam suñ borom bi mu ñuy dénk saytaane dane maanaam inna kayda saytaane kaana da'ifan dane dane pexem saytaane maanaam lompoñ la amu solo waaye bi mu ne jigéen ñi dane inna kayda kunna azimun sëñ Fallou ca xoromu ga daan wax naan inna kayda kumba azimun loolu lay wax jigéen ñi dañoo rëy pexe lool te jamono jii moo ci raw da ci am ñoo xam ne seen intention mooy maanaam ni ñu lay yàqee ni ñu yàqee doomu aadama ñun ñi ñëpp amul ku ci amul tentation kenn man mii rek man mii sama jëm bopp man ay nit tenté nañ ba tàyyi yu noonu ci man dafa jàllut mm-hmm. dafa jàll bu yàggul maa la koy nettal léegi bu yàggul donc am na koo xam ne commencé naa wax man ma ne man maa ngi ñaari jeeg te ay gone yu ndaw lañ hmm. te su ma neexoon ma amaat yeneen ñaar waaw kon nag sa sa sa lii sa lii du ma ci dugg hmm. na doxe noonu bu bëggee ay soxna na leen takki soxna jigéen ñaa ngi fi tubaarkàlla waaw na na na leen takki ay soxna te bàyyi jigéen ñi nga xam ne ñoom lay wootanteel téléphone ak di kiyoon kiyonteeg ñoom wala yu dem noonu dañ koy yàqal dong loolu laa koy wax moom exactement mm-hmm. buñ ne ñaan am na ay ponk mm-hmm. waaye fi may njëkkee mooy wàllu seet mm-hmm. tey ba ma doon wax yan anam seet moo am ak ñaata façon seet la ñuy seetee waa ko jërëjëf euh, seet bari na ay façon lool Euh, am na ñoo xam dañuy seet ci zulmaan yu am ñoo xam dañuy seet ci maanaam am ñoo xam seet ci lu ñuul mooy ñi nga xam dañuy yor ay petaaw wala ñu yor ay béjjën di ci tuur darat wala xeet yooyu noonu ñooñu maanaam loolu mooy zulmaan yu maanaam lépp loo xamante ne bii lu ñuul la rek maanaam petaaw ay béjjën yu ñu ay bant yu ñu samp wala xeet yooyu noonu loolu mooy seet goo xam ne zulmaan yu lay doon am na seet yoo xam ne nag nuuraan yu la nga xam ne maanaam yow da ngay seet ci wàllu ab téere wala ngay listixaar ñun nag yàlla dogal na ñaar seet yooyu la ñuy seet mun ñun seetuk téere la seet wala seetuk ñaar yooyu rek la ñuy seet waaye lépp loo xam ne wax nañ ko ci itam du lépp loo xam ne wax nañ la ko ci maanaam takkal téere moom du dañ waaw ci wàllu seet mhm. amul luñ ci luñ ciy wax muy muy dañ mhm. ndax am nañ ci lu leer lu wér loo xamante ne bii maanaam euh, jarbu nañ ko miraaran daal def nañ ko defati ko mhm. waaw lu ñu la ci wax rek mooy mooy li am incha bu nekkee ñu nekk ci nag bu nekkee ñu nekk diaspora dam ko sàlli xam nga seet moom li nga ci soxla rek mooy moo xam noo koy seetalee nag bu fekkee da nga koy seetal ci wàllu bidiw wala bu fekkee da nga koy seetal ci wàllu lu mën a doon rek boo xamee turam xam turu waajur mu jigéen rek tur nga ko seetal bu ko defee ñu ci bu ñu ko defee rek incha allah ñu daan leen seetal te seet gi seet gu leer lay doon d' accord sëñ bi ndaw ñu bari jaaxle nañ. Mhm. ñii dem nañ ba amatuñ yaakaar ci réew mi. Mhm. ñii dem nañ ba yaakaar ne seen avenir ci naar bi la nekk. Mhm. ñii dem nañ ba yaakaar ne réew mënuñu fee tekki. la ko waral muy wàllu tëju. yàlla sunu borom jox la secret man damay wax ni. màggal boo ñëwee fii. da nga naan xanaa moodu moodu yëpp fi la ñuy dal. ñenn ñi dañ naan la. sëñ bee ñu taxaw sëñ bee ñu dimbali amuñu woon dara donc tey buñ amee c'est normal ñu ñëw ganesi ko waa kay xam naa li ma njëkk wax rek mooy ndaw ñi maanaam nañ dal daal nañ dal. te xam ne nag wax dëgg yàlla maanaam maanaam maanaam c'est pas l'affaire du monde daal. maanaam yëf yi yëf yi jeexagul daal nañ dal te xam ne itam nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi ginnaaw ñu ngi góorgóorlu waaw nañ leen jàppale rek te dal boo ko defee yàlla mën naa def jamono soppeeku boo ko defee maanaam ndax inna ma'al usri yusran boo defee fu loolu nga wax noonu wàllu ubbeeku euh, xam nga ni kii maanaam loo mën a am fexeel ba ubbeeku fexeel ba am te loolu yàlla dogal na mag ñi maanaam faggul nañ ñu ci lu baree bare baree bare tey bu ñu fii moom la ay càngat yoo xamante ne bii ay ay yoo xam ne ko teg yoo xam ne ay càngat la xeeti càngat yu mag yëpp moo xam wàllu mag la moo xam xambum góor la moo xam euh, samsul bilaad la moo xam fadilatu yusuf la moo xam gaa yi xam càngat yi xam nañ yi may wax yooyu yëpp mi ngi mi ngi mi ngi ñu bind defar ko ba mu jekk moo tax képp koo xam ne bëgg nañ laa taal maanaam ci foofu rek lañ lay dugal sangala. ah waaw waaw. foofu lañ lay dugal sangala buñ la fuñ la fa boo génnee loo yëngal rek mu yëngatu. moo yi nañ ci boole loolu nañ ci boole maam di wut leen lu leen taal lu leen yëkkati da nga gis ñaar ñoo xamante ne bi gis nga suuf bu jalantee rek bu sudantee rek sëñ bi dañ koo jàll maanaam da ngay gis ñaar ñoo xamante ne ñoo bokk menn métier waaye kenn ki dee jékki-jékki maanaam évoluer ci lu gaaw a gaaw a gaaw daal di dem yoonam bàyyi fa ka ca des muy cokk-cokk te gënu ko góor gënu koo ko dara li ko waral mooy maanaam kooku noonu dafa góorgóorlu ci ñaanlu te ki ci des maanaam bàyyi boppam waaw bu ko defee nag maanaam lu gàllankoor yi bu ñëwee rek maanaam looloo koy gàllankoor. kon daal képp koo ne bëgg ngaa ubbeeku dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay am càngat yu am solo yooyu yu mag yooyu di ko jëfandikoo ko defee lépp loo nekk rek maanaam loolu moo lay dimbali maanaam nga am nga àgg ci fa nga fa nga bëgg a àgg. Mhm. allah. loo yor mu dem. man mhm. xam naa ne maa sama gis man dama njëkkee ci sama man. Mhm. te war naa ci morom. waaw sëñ bi mu dem. waaw loolu day am dafa ñoo xam ne cat moo leen jàpp cat moo leen jàpp ba lu ñu yor mu dem fi ne mën nañoo yor un million bu subaa boo leen laajee dañ naan dañ ah, naa cinquante mille moo ci des wala yu demee noonu mm-hmm. te duñ te boo xamante mm-hmm. nit nekk na Europe ba yaakaar ne dootul amati kayit mm-hmm. yàlla jaarale ko ak yow muy dama ko ñëw nu ko neexee ba yóbbuwaate secret papier boobu noonu. waaw ñun ku ñaanal mu am kayit ñun moom wàllu kayit ku ñu ci ñaanal rek nga am kayit waaw loolu moom yàlla def na ko maam képp koo xamante ne yaa ngi bëgg a dugal kayit maam fi mu gën mu gën a kii nag mooy ki nga xam ne dafa dugal sax kenn tontu wu ko incha allah bu ñuy bu ñuy jëflante ak moom rek incha allah mu daal mu daal jot tontu. Mm. waaw ci gàttal daal képp koo xamante ni bii am nga jafe-jafe kayit te nekk Europe boo jokkoo ak ñun bu soobee yàlla incha allahu ñu réglé la problème boobu. ndax papier yooyu day yem ne tey dañuy mhm. ne sax dañuy am seen kër. Mhm. ñu xëy ñëw nangu woo bëgg a lijjanti rek. këyit woo bëgg a lijjanti rek boo jaaree ci ñun insha allahu mhm. a jaay doole kooku moom bu ñëwee ñun dañ yaa ngi yor sa alal nit bëgg a ñëw tëdd ci liberté woon mooy boo jokkoo moon bu soobee yàlla man dama lay xeexle man waaw ba nga jot sa alal bu soob yàlla ndax loolu maam dañu koo digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam maam unsur axaaka zaliman aw mazlum loolu la wax dane maam dimbalil sa mbokk bu tooñee mu ne ñu ko bu tooñee noo koy dimbalee nga wax mu ne mu koy wax ne ko yaa tooñ buñ ko tooñee nag moom da koy xeexle moom ba mu jot àqam waaw incha allah. Mm-hmm. waaw euh, mu ngi noonu Serigne Khadim Bamba Lo téléphone yaa noonu daw ci écran bi képp koo ngiiru dundam ba ay doomam donn ko. Uh-huh. ñu naan da koo liggéey. Uh-huh. ñii naan alal ji fu mu ko jaar. Uh-huh. secret samp ba ci ñeneen ci nguur gi. xam naa ci ñoo xam ne ba tey. fañ toog jóguñu fa. secret boobu noonu wàllu samp. maanaam bi bi bi élection yi di waaj a kii sax dafa am benn waay boo xam ne loolu la ma wax dafa ñëw ci man fekk moom am na fu maa ngi moom mu ne ma ne ko déedéet <laughs> waaw fa nekk kenn a bu fekkente ngir dundam te dina ko njariñ dafa war a samp foofa loolu nag am na lu koy def am na jëfandikaay yoo xam ne bu ñu la ko jëfandikoo maam foofa noonu yaa koy bëgg a jógee fa même kër sax bu fekkee da nga faa dëkk te te bëggoo faa jóge yow yaa fay bëgg a jóge jóge waaye kenn mënu la faa jële hmm. waaw buñ la fa sampee jeex na moo xam place la moo xam kër la moo xam liggéeyukaay la moo xam lu mën a doon rek nga bëgg faa toog insha allahu dañ la fay samp nga toog fa te it nga fa jariñu njariñ lu wéer waaw bu soobee yàlla. Mhm. ma ñëw ci secret fay wax. Mhm. coow lu mu bari bari bari bari. Mhm. ci ay minutes. nañ dem police. dama koy fay doo ko fay. ñu jékki-jékki coow li mel ni. amu fa mu am secret boobu nga am. waaw loolu xam loolu ku xam sëriñ la xam nga ne maanaam maanaam bokk na ci li nga xamante ne bii sëriñ si dañ koy liggéey maanaam euh, wax lu mu rëy rëy ak jum mën a doon nag des koy fay. kullama aw xooloo naan lil xar bi at fa allahu maanaam sawara fu mu tàkkee rek maanaam maanaam suñu borom moom mën na koo fay hmm. te foofu rek la jaar ba mën koo fay coow lu mën a doon rek ci ko waaw buñ ci ko ci lu gaaw gaaw gaaw a gaaw hmm. waaw bari naa coow yoo xam ne yëkkatiku na maanaam maanaam maanaam ñetti fan lay am ñeenti fan ñu jékki-jékki jàll ci leneen fekk maanaam ca dañoo jaar ci suuf maanaam xëpp ci ndox mu sedd mu jeex hmm. waaw kon képp koo xamante ne yaa nga coow xam ne bëgg nga mu fay incha allah jokkoo la ñun rek bu soobee yàlla ak bu man a doon waaw question bi question bi nag xale jigéen ñi ñoo ma koy ko yónnee. Mhm. muy ñi nga xam ne dañoo taw am jëkkër. Mhm. waaw ñu ni ma laajal sëñ bi. Mhm. ndax côté boobu noonu. da ciy liggéey wala du ci liggéey. waaw loolu moom wax ci ay émissions yu baree baree bare yaakaar naa yoo xam ne def naa ko ak ay nit man boo ñëwee li ma lay jox boo ko jëfandikoo di nga gis juróom ñu taxaw. Hmm. waaw juróom da nga gis juróom ñu taxaw nga xo nga tànn nag yow koo ci ci bëgg. juróom waaw moom kay amul caaxaan moom boo ñëwee li ma la jox boo ko jëfandikoo juróom am na sax yeneen yoo xam ne moo gën a efficace nga xam ne maanaam bu dee góor la goo xam ne dafa bëgg soxna su ma la ko joxee boo ko sangoo tey bu subaa ah, ñi noonu la mel noonu na góor sax xaalis bu baree baree baree bari ba fi mu toll nii mën seen bopp lool waaye fu ñu ngoro ñu dàq leen loolu fekk dafa am dafa am dafa am ko waral ñenn ñi xam nga bu dee ñi dañ yor faru rab dañuy yor faru rab boo xamante ne bii maanaam day bañ ku leen ku leen ku leen ku leen ngoro am nañ xanaa xamoon ne am na am na ci jigéen ñi wala ci góor ñi ñoo xamante ne bii ku leen ngoro dee la ilaha am na ñoo xam ne ku leen takk ndax faru rab ñu yor dafa garaaw dafa garaaw ba nga xamante ne bii maanaam yow booy dugg ci ñoom rek ñoom ñu fàdd la moo tax soxna bala nga jël dugg war nga ko xool de soxna dañ koy xool sëñ bi soxna dañ koy xool man dama koy faral di wax dama naan leen soxna ku ciy dugg te man man man man man man moom loolu gratuitement laa koy xool wàllu soxna maanaam boo ñëwee boo bëggee soxna danga may jox ak tur rek man du ma la loolu du ma ci laaj du ma ci laaj kenn xaalis waaye ku ma ne la duggal jëlal boo ko jëlee da day dox su ma ne la bul dugg wallaahi alxasim boo duggee di nga ko réccu loolu yàlla daf ma cay may waaw yàlla daf ma cay may tamit loolu loolu du ma ci kenn xaalis moom envoyé ma seen tur rek man ma seetal la ko ku ciy dugg ci soxna xool ko ku ci jënd oto sax xoolal ba xam ku ciy jënd kër xoolal ba xam waaw mag ñi dañ daan xool yooyu. des fois nga jënd dara. am na xam nga soxna yi soxna yi soxna yi guy gi maanaam dañoo xaajaloo juróom-ñeenti xaaj juróom-ñeenti lañ. tey. gis nga am na ci koo xamante ni boo ko takkee. fi nga ngay yem doo avancé mukk ci àdduna. mooy numéro un. numéro deux bi mooy ki nga xam ne boo ko takkee falu buur sa kër bu fa nekkee tëddal nelaw dépasse moom da koy am kenn mun la ko tee am. waaw man de ci laa am man. Ah, waaw da ngay am dépasse tëddal nelaw. moom ci laa am boo ko xooloon nag seen diggante boo yokkee ñaar la. Mhm. mooy ki nga xam ne boo ko takkee moom da yalwaani hmm. wala yaasu bi laa loolu yàlla ci yàlla musal hmm. quatre mooy ki nga xam ne boo ko takkee feebar mooy xew seen diggante da gis ñoo xam ne dañuy mariage day am rek ci suba sa rek góor ki feebar wala ku jigéen ki feebar ñu naan ah moom de bi ñu ci duggee rek la feebar feebar mooy am seen diggante kooku baaxul xam nga cinq mooy ki nga xam ne moom njaboot xaalis mën naa bañ a njaboot moom day na xam nga hmm. ndax ko takkee du ngeen juboo mukk ci àdduna te yéen ñaar dina ci koo xamante ne bii du wóolu moromam te tootaa da ngeen di tàqalikoo bi juróom-ñaari mooy ki nga xam ne moom boo ko takkoo moom tam falu buur bu la fekkoon nga yor benn benn vélo 4 x ngay am léegi léegi nga am 4x4 maa lox lii mooy juróom-ñaar juróom ngoroom day ak sëyam day bari ay coow waaye teewul baax na ndax day am wërsëg juróom-ñeent nag moom ku gën a nooy bopp dee. laa ilaaha illallaah. te lii du dañ wallaahi laasim lii du dañ. mais noonu dafa xam yi maanaam xam-xam la boo xam ne dañ koy xam du dañ maanaam gis nga képp koo xamante ne bii dugg nga ci soxna te xooloo ko ba dal ci yenn yi nga xam ne baaxuñu maam nii dong lay demee du dañ ndax xam nga maam loo xam ne da nga koo jarbu loo xam ne da nga koo yàgg def daal bokkut ak loo xamante ni maam dañ la koo jàngale way doon lii dama koo yàgg def man ñaar fukki at nii may seetal nit ci ay mbiri soxna su ma ne la dugal boo duggee am ndam su ma ne la bàyyil boo duggee doo am ndam mukk ci àdduna mhm. noonu la demee kon nag képp koo ne bëgg nga borom kër wala nga bëgg soxna seet ko ba noppi nag waaw bu ko defee maanaam incha allah bu ñu jëflantee bu fekkee dangaa tëju wala nga yor rab wala yu demee noona ñu dindi loola bu ko defee li nga bëgg nga am ko. Mm-hmm. dañuy sëy. Mm-hmm. waaye ñaar yi mooy seen mm-hmm. njëkkee. ak goro. waaw bëgg ñaan. waaw waaw loolu loolu da ngay def jubóo da ngay da ngay jubóole seen diggante rek xam nga njëkkee goro nag maanaam ci sëy bi lañ bokk. <laughs> ndax kenn ki moo jur sa waajur keneen ki mooy sa ki waajur wala muy ma sarak ki jëkkër wala muy magam. mënoo leen cee génne te léeg-léeg nag xam nga xale jigéen tam dañuy bëgg a def loolu dañuy bëgg sëy bi ñoom la ak seen jëkkër loolu tamit mënta nekk de loolu tamit mënta nekk de maanaam ñun suñ tradition maanaam ñun suñ tradition mayewul loolu xam nga bu dee ab tubaab moom yéen ñaar da dem jël seen appartement toog fële waaye ñun ay sénégalais lañ ay nit ñu ñuul ñun suñuy sëy maanaam goro ci la bokk maanaam njëkk ci la bokk nijaay ñëpp sax ci lañ bokk waaye yow bu fekkee dëng dëng dafa am roccikul ndànk da nga dem seet ku mel ne sëñ Xaadim Bambalo boo dee mu jox la benn affaire boo xamante ni boo ko jëfandikoo rek boo nee dama ne boo nee boo nee iso ñëpp ne yar xamukallaa mu jeex bu ko defee doo fa nekk di di sonn mhm. loolu lu ñu yomb la lool mhm. waaw pour ñu jubal leen ñoom ñëpp ñu nekk benn mhm. mag ñi dañ daan yor ñeenti soxna ci genn kër te xat du damm doo dégg xuloo doo dégg lenn li ko waral ñoom dañoo gëmun baatin di ko jëfandikoo ñun nag léegi dañoo dem ba léegi ñu bëgg a weddi baatin xar nga foofu nag ku ko mu ne lu fuuf noonu demee waaw am na solo ma ñëw ci wàllu am doom. Mm-hmm. sëñ bi mu doon secret boo xam ni. Mm-hmm. ci yow laa gis mag moo xam ni. Mm-hmm. demoon na ba yaakaar daa ménopause. yàlla jaarale ko ak yow. mu dem ba am doom. damay wax ni daanaka turandoo yi. macha allah day gën di law rek. alhamdulilah di gën a yokk. secret am doom bi. waaw ma ñun li nga xam ne moom lañ ci jëfandikoo kuñ ko jox nga am doom bu fekkente ni bii yàlla bindal na ko dafa am nag euh, guy ci nit ñi ñoo xamante ne bii duñ am doom. am na signes yoo xam ne sax wax mas naa ko wax am na signes yoo xamante ne bi sax maanaam bu amee ci nit nit ka du am doom seet loolu baax rek yow góor goo xam ne amul benn karaw sikkim nga ah, xam ne amul benn karaw sikkim hmm. waaw seetlu ko dëgg la maanaam boo ci gisee fukk juróom yi duñu am duñu am doom hmm. waaw jigéen ñi tam am na signe am na signe bu nekk bu am bu am ci ñoom am na ñoo xam ne tam suñu boom daf leen a bindalut doom te loolu mooy sa ko seet ba xam ko waaye bu fekkente ni bii daal wala boog am ñoo xam ne dañoo am jàngoro lu mel ni ay kist lu mel ne fibrom xam nga xeet yooyu noonu day dem placé wu fi ëmb bi wala placé placé loolu des koo war a faj loolu nag dañ koy faj ñun tam maam bu dee bu dee doo ko tàmbali dañ koy dindi ñun bu dee ci ci wàllu médecine euh, traditionnelle bu fekkee màgg na nag da nga dem ci docteur yi ñu dindi ko ñoom ndax dañ koy opéré waaye bu fekkee daal benn jàngoro nekkul ci yow te nga bëgg am doom boo ñëwee li ñu lay jox boo ko jëfandikoo yàgg sa borom kër insha allahu suñu borom dana leen defal doom mm-hmm. bu soobee yàlla waaw mm-hmm. naka nga def mm-hmm. ba gañ a confiance su say client parce que. Mhm. sag ñaan li ma ci gën a neex. Mhm. mooy dañu tëj jiital yàlla. Mhm. waaw c'est très important. damay wax ni boo ñëwee Dalifort. doon sëñ Xaadim Bambaloo. imaam ngay laajte. yaakaar naa chaque ajjuma ku ñëw ca jumaa ja dina la fekk ca minbar ba. ngay xutba. naka nga mën a composé woo. ak ngëm yàlla gi. ak fi jamono toll. nga xam ni sëriñ si. la yàlla xam doy na. Mm-hmm. naka nga mën a def ba mu mucc ci loolu. Mm-hmm. waaw uh, ni nga ko waxee rek moom suñ ñun suñu mbir dañ cee jiital suñ borom. Mm-hmm. ndax xam nga nit ki bu fekkee yow imaam nga ni ay nit doy loola ngay taxaw ci seen kanam di leen jiite normalement war ngay wax dëgg te jaar ci dëgg loolu moo waral ñun suñuy mbir yëpp dañ koy teg ci dëgg dama ne la man wax lu dëgg lu muy maye du ma ko am. waaw man lu fen lu muy maye rek man du ma ko am. waaw nit ñi nag ngir nga gagné seen confiance. ngir nga gagné seen confiance mhm. maanaam da ngay jaar ñoom ci dëgg te leen defal lu ñuy gis mhm. waaw da fexe ba di leen defal loo xamante ne bii mhm. maanaam dañ koy gis ñoom waaw maanaam bul lekk bu jël xaalis jaamu tëdd di nelaw ñu bare baree baree dañuy dañuy dañuy réclamé yu mel noonu. waaw sëñ diw jox naa ko sama 400000. waaw sëñ diw jox naa ko sama 500000. waaw xalwa na boo demee alma di fekk ko fa jeex na boo demee alma di fekk ko fa. sëñ diw jox naa ko nangam defaluma dara lim ma defal gisuma ci dara wala xeet yooyu noonu loolu nag ñun moom la daw ba képp koo xamante ne bii maam ñi ngi jëflante yow ñun leer rek la ñuy yow dañuy ñaan yàlla mooy aji may ji donte nag am nañ jëfandikaay yoo xam ne xam nañ ne ku ko def am nangam moom waaye loolu la ñuy njëkk a jiital ci jëm boppam muy kenn muy muy doyloo ak jox ko cëram ba noppi ndax nit warut taxaw taxaw place yàlla de. ndax it maanaam yow bu fekkente ne yow sëriñ bi da bëgg a taxaw ci taxawaayu ñi nga xam ne ay féticheurs la nga xam ne ñaan mhm. mu neex yàlla ak mu naqari ko day am mhm. yow ñaankat bi nga bëgg a taxaw ci euh, maanaam point boobu noonu loolu du sotti mhm. waaw moo tax nag lépp lu ñuy def rek ñun dañ ciy jiital suñu borom tabaraka wa waaw ay ca mu ngi noonu sëriñ Xaadim Bambaloo numéro téléphone yaa ngi am na solo lool. Mm-hmm. te li ma ci gën a neex mooy lépp pajum olof la. Mm-hmm. boo ñu doon forom fàcceel garab yi. waaw kay bu garab yi ñaari façon garab la rek euh, moom lañ wala boog yi ñu taxawal fii rek ñaari façon garab la yi nga xam ne moom lañ teg fii. Mm-hmm. benn bi mooy mos-mosaat moo nekk nii. waaw bi moom gars yi xam nañ ko. ñëpp xam nañ ko mos-mosaat garab la goo xamante ni lu efficace la man damay faral di wax ne ku sama garab. maanaam maanaam ñaan yi dama koy wax damay wax ne képp koo xam ne ñëw nga fii suñ borom dana dafa nar a faj sa aajo mooy tax mooy tax nga ñëw fii ñaar ba itam mooy damay wax ne ku jël sama garab bu la amul njariñ sax indiwaatal naa sama garab ku jël kii képp ko xam ne bi da nga am hémorroïde interne wala externe wala nga néew kattan wala ngay gaaw a yegg boo ko jëfandikoo ci bis bi ngay commencé am résultat te boo toppee traitement bi daf lay faj bëgg a wér te garab gi amul benn effet secondaire hmm. waaw lépp lu naturel la li ma li ma ko waaw moo tax maanaam maanaam maanaam lu lu naturel la mu ngi nii mooy mos-mosaat. Mhm. am nañ geneen garab goo xam te moom la ñu wooyee dëpp moo nekk nii. Mhm. moom pobaat bu daw lay àndal. ndax xam nga ni nit ki bu néewee kattan dëgg-dëgg awraam day mel ne lu dellu fekk sax delluwut waaye ay siditam ñoo taxawut mhm. bu ko defee day jëfandikoo kii di jëfandikoo pommade bi bu ko defee dina am li bëgg lépp waaw ci wàllu ci kattan waaw ne danga koy baaxee sénégalais yi ci wàllu pajum olof tey lan nga ñuy may maa ngi leen di may ci wàllu ndoxum siti lu sonal nit ñi la waaye xam nga Sénégal dañ jël faju loolu mooy problème bi. waaw maanaam euh, da ngay tàmbalee faju par exemple par exemple sa yaram sa yaram day xasan nga jël garab jaani fan xasan si arrêté nga ne wér naa dem. fekk demewul noonu. Mhm. lii may wax nii képp koo xamante ne bi yaa ngi koy jëfandikoo waaye nag na nga ko jëfandikoo lu yàgg lu mu néew néew na man ñetti semaine yoo xamante ne bi da koy jëfandikoo. Mhm. koo xam ne jëfandikoo nga ko suñ borom tabaaraka dina la may toog feex ci wàllu ndoxum siti muy ñaari reen rek la reenu rëb-rëb la rëb am na garab bu ñuy wax rëb-rëb reenam reenu dànq amal ñaari reenu rëb-rëb ak ñaari reenu dànq nga boole ko def ko ci ñetti liitaru ndox teg ko ci taal ba mu bax su baxee nga tegg teg ci suuf ba mu sedd bu seddee nga di ko naan par kaasu ndékkikaay saa boo lekkee goble yi ñu ñu ñu ñu kiyee ñu naan kafe rek saa boo lekkee nga naan ko bu jeexee nga defaat ko nga te nga nga nga dappetoo ko ba mu mat képp koo xam ne def nga ko maam sa ndoxum siti moom day dañ ci yow ndax ndoxum siti feebar la boo xam ne kii dara la nekk kon boo ko dee faj foofu nga koy faj may naa ko ñëpp di ñaan képp koo xamante ni faju na ci tam ba am ci taw feex mu ñaanal ma gudd fan ak wér ak it sax dàq ci dàq ci doon taalibe Sëñ Tuubaa rek bu koy liggéeyal. ni ma koy faral di mm-hmm. a mm-hmm. xam ne mën nañu koo fàtte it nga war koo baaxee askan wi. ak waaw kay waaw xam naa li may tàggatoo rek mooy wax leen numéro téléphone yi muy 77. 518 01 43. mooy numéro orange bi mu daw ci bi waaw. Mm. ak 76 012 61 61. di wax ne euh, élection yi nga xam moom lañ jublu suñu boobu yàlla na ci def jàmm Euh, képp koo xamante ni bii tamit yàlla dogal na maanaam euh, mu gañe wala ñu gañe ko nañ xam ne lépp Sénégal la Sénégal la maanaam ñun ñoo bokk suñu Sénégal ñoo mën a ànd itam defar ko mm-hmm. waaye bu ñuy beroone ñuy beroone rek maanaam maanaam daanaka togg togg silmaxa lay doon ak ak ak gaana maanaam kii dina ami loxo waaye. Ah, ah, kee kee kee tam kii day ami loxo waaye du ami bët. Mhm. ki kii ami bët waaye du ami loxo. Mhm. kon da da da dara mën naa bañ a dox. Mhm. kon nañ àndandoo xam ne Sénégal suñu Sénégal la maam ñu bokk liggéey ko yal na yàlla defal ñëpp jàmm ñu ngi leen di ziar bu baax baax tey te leen ñaan tam nag ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom ngeen def ci site bi muy topp maanaam yenn euh, cas yi nga xam ne am na di leeral nit ñi. ndax nit doomu aadama dafa bëgg xibaar. kon nag ki nga xamante ne day dem di la indil xibaar maam euh, bu wér te leer di la ko jox kooku war nga koy remercier di ko gërëm saa su nekk mm-hmm. leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ba beneen yoon bu soobee yàlla ayca jërë ngeen jëf numéro yaa ngi noonu di daw ci écran bi Serigne Khadim Bambalo mm-hmm. boo ñëwee ba Ndakaaru boo ñëwee fee nga xamante ni mooy Dalifort mm-hmm. boo ne Serigne Khadim Bambalo imam ñu yóbbu la ba këram boo ñëwee tamit fii di Touba boo wootee foo nekk ñu tegtal la. Ah. Euh, foo nekk ci réew mi ci bitim réew boo wootee ci numéro téléphone yooyu WhatsApp beeg lépp a ngi dox. Ah. incha allah ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di leen jox dig daje. Ah. sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.